mangi tudu alunya nek sénégalais am 20 ans Suisse la nek actuellement. mom xamna na football bëgg na ko daal passion bobu mom xamna lu mu bëgg la parce que tamit même école bi fi da na ma bolé ak du wax day am ay devoir yo xamna ko def du ma ko mujjoon tere sax complètement football la tout ak genn bi yépp waaw mais sans ben doom baay daal bu muy ànd ak doomam. moo ma ne kii euh, toll ci vingt ans nekkoon immigré foofee ci Italie euh, te ci jamono yi nag mu nekk foofee ca Suisse di fa football euh, mat naa nettali ak ki nga xam ne mu ngi juddoo foofee ca yëmbal daal di yaroo Kër Massar bëri na ay jaar-jaar ak tolof-tolof yoo xam ne dund na ko daal di jànkonteel lépp loo xam ne xiif la tumuranke ak sedd boobee nekk ci Europe loole nag lenn rek moo ko waral mooy football bëgg bi nga xam ne moom Niang bëgg na ko lii football mu jaraloon ko dund lu ne. waaw man maa ngi juddoo yëmbal mais Kër sar la màggee wala defee école yooyu noonu wala gën xam quoi. lépp ngi tàmbalee ci atum 2014 jàpp 2015 Aliou Niang daal di jóge fii ci Sénégal jëm fële ci Italie. fas yéene fa fekk way juróom bu góor foofee ca Italie li ko fa yóbbu woon nag doon eh, yeggali ab njàngam waaye moom eh, ci boppam am na loo xam ne mu nekkoon ci xelam nekk ci biir xolam maanaam eh, football. maa ngi dem Italie ay 2014 2015 yooyu fekk sama famille ñoom ñëpp ngi fa déjà sama papa sama yaay samay rak ñoom ñëpp a ngi fa dama waroon dem juste fekk leen en fait sama papa moo may doon Italie pour ma am nationalité italien après commencer jang des formation pour liggéey looloo taxoon papier au yóbbu Italie mais man bamay dem personnellement damaa demoon pour nek euh, footballeur professionnel man loolu moo nekkoon sama bopp. mu dem nak ci dëkk bu bess ak kàllaama bu bess waaye itam climat bu doy waar sedd bi fa ci jamono alu nag xaw a réer tumburanke tuuti ndaxte foofee mu dem déggul kàllaama ga climat bi itam xawoon doy waar mu jàpp ni rek challenge bu taxawoon ci kanamam la mu waroon ko daal relever. non pour moi, adapter c'était pas facile d'ailleurs manal sama ben cousin ñoo àndoon Pamba ben la lakkos laa soloon bu yam fi ba ñu ba Italie ñi laaj ay document yo xamni xamnu ko parce que kooku italien la doon wax te ñun ñu won italien d'ailleurs bobu sax dama commencé won ti nan langage bi mom bu mako xam jamais yooyu non ñu dem ba ba dal ci salle attente ku ñuy jël si gisuñu ko mané ne xaaral ma génn xool Europe nu mel ma génn rek seddaay bi dugg boobu fekk na hiver la sedd guy rek ma daw duggaat laa ma xam ni tout changer. <laughs> ci kaw loolu nag mu daal di inscrire foofee ca Italie rawatina ci dëkk buñ naan Bergamo daal di fay commencé njàngam ndànk-ndànk nag mu daal di commencé di miis làkk boobu di italien. li ko ci gënoon jàppale sax ci ay kàddoom mooy société sénégalaise bi nga xam ne bëri nañ lool foofee ca Bergamo ñoom ñoo ko gënoon yombalal intégration mais après si la dugg école commencé jàng commencé xam langage peu à peu mais lu ma gën a may sens mooy euh, Italie fi ma dëkkoon Bergamo foofu dafa bëri ay sénégalais ñu toll ni man léegi ñu wàccee woon dañu doon dem si parc bi nekk foofu football. yooyu non di kaf di retan sama beaucoup ya, aidé et puis guddi sama kër cousin laay dem paate man ak moom ñu dem football yi parce que ñoom bokkoon même équipe te suñu kër ak terrain bi dafa xaw a sorante moo tax foofu laay dem ñu dem football suñ ñibbisee ma fanaan seen kër suba ma aw non, dem football parce que ñun fii Italie ñu fi nekkee ñun fi ñu si kaw mais da ko doon jaral daan na am abonnement car sax mais bu mu pare day fekk car yi mais moom da koy jaral mu yore yéeg vélo wala lu ne pour fexe rek nu nu mu ñëwaat mais football moom jaral na ko lu bari loo xam ne moom xam naa ne njàng mais yeneen affaire yi jaraluñ ko ko waaw football bi moom jaral na ko. danoo mujj sax boole ma moom ne ma kii vélo yi muy dawal guddi gi wóorul xam nga ak oto yi fii te tubaab yi duñ daw ko ma far ko ne bàyyil vélo léegi yow bu dee fobali nga boo ñëwee woo ma ma jël si waaw mais moom football moom bëgg na ko quoi. Euh, kii di way juróom bu bi nag naam euh, ca ndoxteel lii da doon tere doom ji lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum football doon ko jàngaloo di ko tere lépp loo xam ne rek xeetoo nag football. dem na nag ba ñu mujjee koo gëmloo ni doomam ji am talent waaye itam bëgg na lii football ndaxte bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu way juróom bu góor bile moom Aliou Niang doon na jël velom di def ay kilomètres lépp rek ngir mën a dem entraîné wu ji itam bu paree entraînement daal di dawal wat lepp rek ngir top a passion bi mu amone même école bi fi daan nan ma boole mom dama wax day am ay devoir yo xam ko def dama ko mu doon tere sax complètement football ak tout ak genn beeg yëpp waaw mais sans ben dom ba da bu muy and rek doomam moma ne ki baye ko muy dem di football parce que wax deug yalla gis na na bu si continuer man naa bax ndax nee da ma sa yott ben match jëm yéeg sa kaw ñoom gisunu ko nee nañu mu ne leen deux moom mi bi muy mise en train ñu war koo dugal nee tubaab yëpp tëb naan ñang ñëw na ñang ñëw waaw bi mu duggee tamit def différence bi dugal ñaari but égaliser ah, ginnaaw Italie nag Alioune Niane jóg ci ab bés fas yéene nag tànt ji beneen aventure Manam ginaaw bi mu hésitation entre dem foofee Japon wala Suisse mu mujjee di Suisse rawatina ville bi di Lausanne de di fay dem ngir uti liggéey ci kaw noonu nag mu dem ci nga xam ne Suisse tolloon nag ci 18 ans képp dem foo xam amu famille itam amul benn këyit mu dund ay période yu jafe lool doon fanaan ci suufu pont yi ci seddaay bi wala bokk ci arrêt de bus yi waaye loolu yëpp taxul mu bàyyi. ba muy soog a ñëw c'était vraiment difficile xam fi woon kenn amu woon papier yenn saa yi sa si biti la doon fanaan c'était trop difficile ma ne ok papa ma jéem def ko sama papa dem dëkk boo xam ni voilà xaw ma fa kenn Dijon ma def comme moom quoi tracer sa vie tout seul ça, ça sama pap mu ne ok léegi ma xalaat ni Suisse dañuy wax français kon ma ñëw Suisse moo gën a moo gën a moo gën a yomb quoi parce que japon foog ma nekk di jàngaat langage bi te japonais moom laisse tomber léegi ma ñëw Suisse en fait ba ma wàccee rek laa xamoon naa ni lii beneen challenge la quoi parce que Italie dama ñëw sama papa jox ma néeg ne ma fi ngay tëdd di ma jox chaque jour Nek añ reer te ba ma ñëwee ba suisse yooyu yëpp aw ma ko ma xam challenge la dina metti c'était c'était vraiment difficile parce que toog naa ay quatre mois yoo xam ni wala cinq sax yoo xam ni mooy parce que ba may ñëw dama ñëwoon pour liggéey mais comme ko boobu xale l'a woon

du coup euh, may waxtaan ak sama papa ma ne ko est-ce que commencé dem football ba keroog may am liggéey mu ne waaw ok. Alioune jàpp ba mu dëgër jàpp ne rek lii ay natt yu taxaw ci kanamam la te lépp rek day jeex mu boole li ko neex ak li ko nakari di ko takkale foofu ci Suisse ca Lausanne fas yéene rek yeggale li nga xam ne mooy rêve mooy passion am maanaam fexe. ba daal di am club de football foofu ginnaaw sax liggéey lafa fa demoon uti ji. xam nga fii man maa ngi Italie moom mu ngi Suisse Suisse moom fa demee xamu fa kenn contribuer bi indi woon naa leen fii yëpp ak sama famille tout mu demee ba am 18 dem fa di wëri liggéey mais xam naa liggéey bi moom li mu ko laataa am sax football bi lay tax yooyu yëpp daal football bee ko si jàpp waaw. parce que tamit foo xamul fenn xam nga tumuranke naa daw waaye nag vraiment bi mu fa demee noonu turuñu fa ñooñu bon ñu ngi ci jàmmam ñu ngi waaw vraiment football bi daal moo ko si jàppale a ah, ci kaw loolu ci la aliou daal di tase kii di pablo sutio nekkoon entraîneuru équipe boobu du fc concordia bu lausanne niki noonu nag ci la ko laaj ndax mën na entraîner équipe bi mu nangul ko ko moom sax entraîneur bi di pablo sutio

avec des juniors ma ne ko kay pas problème ma dem wax euh, président bi mënuma waaw ñun am nañ match samedi boo ñëwee ñu xool bu fekk na sama dàll man kay bàyyi Italie moo ko sama papa mu envoyé ma ma jëm dàll match samedi ma dem dugal deux bi def benn passe de jël ma def transfert euh, Italie Suisse bi mooy équipe bi nekkoon Italie def transfert ma commencé football commencé football mu mel ni kon lii di football moo mujjee tax Alioune daal di retrouver waat yoonam ndaxte foofee ca FC Concordia dañ ko daal di jàpp def ko ni seen doom utal ko fu mu nekk dalal ko boole ko ci équipe bi nga xam ne ca ndorteel la ba muy njëkk def test équipe junior bi da daal di football match bu njëkk bi defoon match bu rëy dugal ci ñaari but daal di joxe benn passe décisive. man bi ma xamee ne kii vraiment bëgg naa football nag après parce que comme li ma la wax noonu école bi doon na ma booleeg moom di ma wax ne day am devoir yu mu dul def dama ko mujjoon tere complètement même génn mais après daal sama benn doom bàyyi bu muy ànd ak doomam moo ne ma kii bàyyi ko mu football parce que bu footballee mën na say réussir waaw ndax. daam moom da da ko mujj yoot benn bis ànd ak ñoom te yëg gisuñu ko mu ñëw yéeg sa tribune yi di leen xool nee bi mu demee ba war a dugg fekk ñu mën a seen équipe bi dë moom vraiment bi mu jógee di mise entraîné rek tubaab yi commencé tàcc ñang ñëw na ñang ñëw na ñang ñëw na di kii ba mu duggee tamit daa égaliser dugal deux buts kooku nag bi mu ñëwee moo na ma kii bàyyi

mujjee na sax am foofule ab famille d'accueil fofé nga xamné sax fa la nekk dem bañu outol ko formation ci walum construction métallique. au début euh, suñu entraîneur bi xamou sama situation après si la laj sama situation dama ma yow foo dëkk fii nii ma ko non dëkk moom fenn explique ko yooyu noonu quoi des fois sax si si mbedd mi lay fanaan yooyu noonu mu ne ñun xamuñu woon lool léegi euh, am na fii fay fanaan di fay ñoom ñoo ma ko doon fayal may fanaan foofu ñoom dañ la trouver benn situation quoi après may expliquer équipe bi suñu suñu gardien bi wax ak euh, belle-mère am ne ko am na benn sénégalais bu jóge Italie koo xam ni voilà amul fu mu dëkk yooyu noonu mère bi ne ko ok c'est pas grave mën na ñëw dëkk fii ñun am nañ fi am nañ fi carte nekk te benn rek la ñuy utiliser mën na ñëw fii ñëw fi ñoom tamit apprécier ma ne je suis quelqu'un de bien yooyu noonu daal may jàppale bu baax d'ailleurs formation bu may def nii sax ñoom ñoo ma si ñoom ñoo fexe ba may def formation saa yi ça fait un an ma dëkk foot bi daal jox na ma ay opportunités fii nii daal Suisse su nekk woon football bi saa yi yaakaar naa ni may tali nag way juróom bu góor moom mi nga xam ne sax yéex naa xam yooyu la tolof tolof doomam doon dund foofee ci Suisse doon na ko jàppale ci li mu mën ak li mu mënul waaye nag xolam sedd na am na kontante. moom à distance li mu ko gérer lenn rek mooy moom euh, mi ngi Suisse man maa ngi Italie dem naa fi mu nekk football bi tamit daanaka moo ko fa dimbali ndax bi mu fay dem xamu fa kenn. dem na sax di fanaan ci ay suufu pont yooyu yëpp après laa ko yëg parce que daan naa ko yónnee ay xaalis ak yooyu mais bi mu trouvé équipe ba muy football nii daal ci la mën a moom bu ma yónnee ci dara équipe bi nee na dina fay lépp fi ne ñooñu tamit ñoo ko utal fi mu dëkk vraiment ñu mu dëkkal nekk ñu baax utal ko liggéey fi mu toll mu ngay liggéey mais mi ngi si football bi mais tamit teewul mi ngi liggéey te grâce à ñu mu dëkkal noonu. ñoo ko utal liggéey boobu utal ko lépp ndax équipe bi football bi waaw football bi moom vraiment baax na si moom ndax tey jii bu ko amul woon foofu mën na fa tumuranke tumuranke bu sax tumuranke si yoo xam ne moom waxuma ko mais man daan naa ko yónnee xaalis mais xam nga am na yoo xam ne moom du xaalis a koy def waaw faaw nga am tamit famille foofu wala foo dëkk yu mel noonu voilà moom daal football bee ko fa dimbali. muñ koy xamal moom mi nga xam ne dem na ba foofee ca ak gis doomam ci condition yu baax yi nga xam ni euh, noonu lañ ko fa téye. kontaan trop bi ma gisee ne bëgg naa nekk footballeur ndax daanaka football bi nii fële ba mu fa demee Suisse man ma ne fii Italie bon tamit mënuma daan naa ko yónnee sax pour muy fay ay kii am yooyu. mais football bee si dimbali daal ndax ñu woo na ma fii na ma équipe bi nee na bu ma yónnee te dara ñoom dinañ may dimbali di ma fay ñu far sax ñoo ko mujj utal fu mu dëkk fa mu fa mu dëkk tamit ñooñu utal ko fi muy liggéey nii téye ko comme sama doom tubaab yooyu woo na ma fi wan ma euh, xam nañ ne doom sax bu soree waajuram mën na am ay waajuram dina jaaxle mais bul jaaxle waaw ndax mi ngi si loxo yu baax te ñun dinañ ko surveiller dinañ. nekk si jàmm waaw lu nu mën dinañ ko si def bu amat benn looy looy jaaxle yooyu te vraiment boobu léegi ñoom ñu ngi si man moom vraiment tranquille laa laa def damay dégganteen moom lekk-lekk lekk dem naa nag ba foofu moom seetu waaw dem naa ba foofu seeti kii gis ne vraiment mu ngi si jàmm kii te yooyu yëpp équipe bee ko utal ba mu trouvé foofu yooyu waaw vraiment football mu ñuy xamal ni nag ginnaaw doomam football la bëgg a def moom fas yéenewul nekk agent wam donte sax dina koy faral di encadrer di ko jàppale ak di ko conseiller ci lépp mu ñuy xamal ne rek mbirum football moom du mbiram. xam man football dama see xamul lu bari. waaw moo tax vraiment xam naa. dans l'avenir moom mooy xool agence yi rek waaw moom ñi nga xam ne dañuy jënd jour yooyu loolu parce que tamit vraiment loo milieu boo xamul boo su duggee doo xam lu bari waaw vraiment football moom si lu bari quoi. Hmm. moom sax mu ñuy xamal ni mbégte bu rëy ak fierté lay doon ci moom. Bus kii di doomam bii di Aliou ñang sol maillot équipe nationale bu Sénégal ngir défendre les couleurs nationales histoire Aliou bi euh, ak euh, jeune ko ci euh, football mooy sa passion nga la nakari Ligue 2 amateur foofee Suisse bëgg na nag bés mu percé daal di doon footballeur professionnel. maa ngi rêvé un jour mu football Sénégal parce que tamit boo mënee dara te sa dëkk soxla ko moom vraiment da ngay demee feneen football ko sa dëkk moo gën. loolu moom vraiment un jour bu dee Sénégal soxla na ko moom daa war a ñëw rey si boppam bu baax waaw xam ne nit amul lu dul dëkkam même ñun ñii fii ñu ne. dañuy liggéey fii ñu ngi bàyyi suñu waar si beneen côté di liggéey waaye tamit di defar suñu dëkk ndax ñu ngi fay defar ay kër di fa jéem tamit ku nu mën a dimbali dimbali lool waaw loolu mooy mooy nit sa dëkk moom bu la soxlaa moom loolu vraiment ak demal